asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 ni ñu baaxoo di ko defee ajuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h ñu waxtaan ak yéen ci lépp lu jëm ci wàllu wérgu yaram tey ñu am mbégte di ci dalal ki nga xam ne moom mooy docteur Barnabé Gningue moom nag moom moo jiite euh, programme bi nga xam ne dafay xeex lépp lu jëm ci wàllu sëqët su tar si fii ci réew mi di tuberculose. moom moo jiite PNT su weesoo loolu itamit xam-xamam dafa màcc ci lépp loo xam ne jëm na ci daal euh, nu ñu mën a xeexee lépp loo xam ne dafa jëm ci ay wàllu wér-gu-yaram ak ki ay crise sanitaire ak yu demee noonu ci frontières yi waaye moom moo nekkoon itamit ancien médecin chef bu kon euh, aéroport Blaise Diagne voilà aéroport international Blaise Diagne kon mu yor ñett casquette yoo xam ne euh, bu ci nekk dafa am solo tey ci waxtaan gi ñu nar a amal di comme ni ngeen ko xamee feebar bi nga xam ne moom moo lëmbee àdduna fu mu toll nii di coronavirus dañ koy may rek mu nuyoo ak mbokki auditeurs yi bu ko defee ñu soog dugg ci waxtaan bi asalaamaaleykum docteur. Euh, waaleykum salaam euh, soxna si maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal euh, ci dalal bi nga ma dalal fii ci seen rajo. di nuyu itam ñëpp ñi nga xam ne moo ñooy déglu Rewmi FM suñu mbokku déglukat yi di nuyu waa Sénégal gépp rawat na nag ci euh, fi nga xam ne dañoo toll jaakaarloo ak feebar boobu di lëmbi àdduna si. Mm-hmm. Euh, te jóge ci doomu jàngoro boobu ñu ooyee coronavirus. Mm-hmm. ñu lay jaajëfal bu baax également ci disponibilité bi ndax xam nañ ne fu mu toll nii amu leen jot euh, mbir yi daa xat waaye bi ñu la waxee émission bi rek da nga da nga d'accord tout de suite donc ñu lay jaajafal ci disponibilité boobu ak ci réactivité bi. voilà tey euh, docteur ñu nekk ci jamono joo xam ne jamono ju xaw a métti la ci doomu aadama yi nekk nag jamono ne dañu nekk ci crise nekk mu nekk feebar bu bu doy waar euh, tey ji yow yaa ngi nekk euh, koo xamante ne da ngay yëngu ci lépp loo xam ne ci ay risques sanitaires la ci frontières yi te loolu yëpp dafa am solo tey ci xeex bi euh, mun nga ñëw un peu li nga xam ne moom mooy feebar bi est-ce que tey mun nañu en fait jàpp ne tey jii maanaam lan mooy tey firnde que li nga xam ne moom mooy feebar bi ay daal risque sanitaire la mm-hmm. buñ ko boo ko doon méngaleeg yow sa liggéey. jërëjëf bu baax a baax. Euh, ndaxte bu ñuy bu ñu leen di déglu yéen ñiy liggéey ci euh, bërëb yi ñuy tase euh, xibaar li ñu njëkk a seetlu moo di ne benn feebar bi yàgg na ci biir àdduna si ndax tàmbali na fukki fan ak ñaar ci weeru décembre 2019 ñaar tey feebar bi law na ci ay dëkk yu bëri ëpp na téeméer téeméer ak juróom fukk bu ñu ko doon méngalee ak ni ñuy nattee risque sanitaire dañuy jàpp li nga xam ne moom la organisation mondiale de la santé wax OMS nee na léegi lii euh, pandémie la maanaam feebar buy wàll ci biir adduna si sépp yematul ci ab euh, dëkk euh, wala ci ñaari dëkk yemul itam ci benn continent boo déggee pandémie mooy feebar buy wàlle ci juróomi continent yi nga xam ne mooy mooy àdduna si balaa boobu ci weeru janvier 2020 OMS dafa njëkkoon wax ne lii feebaru euh, bu ñu ooyee urgence euh, de santé publique de portée internationale mm-hmm. ci wolof mu di xeetu feebar boo xam ne yàkkamti na àdduna si sëpp taxaw ndax euh, aar mm-hmm. nit ñi xeex feebar bi mu dellu ginnaaw indi ay jumtuwaay ndax feebar bi bañ a law bañ a bañ dem kanam mm-hmm. ba OMS waxee loolu urgence de santé publique de porté internationale xëy na li ñi waroon doxalee ak euh, li ñu foogoon feebar bi gën ñoo gaaw mu jóge nag fa mu tàmbalee di Chine dem ci yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi continent Asie jóge foofu dem continent Europe jóge foofu dem continent américain tey mu ngi continent africain feebar bi wër na juróomi continent yi nga yi nga xam ne mooy àdduna si kon bokk na ci risque sanitaire yi gën a kawe ndaxte risque sanitaire boo xam ne dafa wër àdduna si euh, risque sanitaire bu am doole la. am na itam solo ci li nga xam ne risque sanitaire boobu dafa ànd ak feebar ak faat bakkan jamono ji ñu wax nii li mu feebar ay nit euh, war na mat. Euh, téeméeri junni ak lu ëpp lu loo xam ne tuuti moo moo ko manqué. Mhm. bakkan yi mu faat mu ngi bëgg a jege euh, fukki junni ndax mu ngi ci juróom-ñeenti junni. Mhm. yu yu teg. Mhm. kon wax dëgg fa yàlla bu ñuy natt li ñuy wax risque sanitaire bii moom kawe na yaatu na gaaw na itam nu muy lawee ci biir àdduna si. Euh, docteur Gningue est-ce que lu mel ni mus na am ci àdduna parce que daan nañ fii ñun peut-être euh, dégg nañ fi ay peste yooyu dunduñu ko. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne am na fii ay SARS 2003 yàggul ak yeneen ak yeneen yoo xam ne Ebola mais est-ce que lu mel nii mus na am ci àdduna ba tey euh, dëkk yi gën a kawe ku nekk tëju sa kër toog benn place kenn ñemewul sax génn mbedd yëpp daal di euh, euh, wéet mbedd yi nga xam ne da daan bëri nit ba mara day taal yi bu ñu xoolee ci lu yàgg la maanaam at yu yàgg suñu ginnaaw mën nañu fàttaliku ci ña ko fekkee wala bu ñuy jàng téere yi nga xam ne ci lañ bind histoire histoire médicale jamono pest ak jamono variole mhm. wax dëgg àdduna si mës na dem bi am ay jafe-jafe lool ci feebar boo xam ne dafa duggoon ci juróomi continent yi ñu bëri feebar ñu bëri faatu mm. daanaka mën nañu wax sax ne euh, fi ñu tollu àggum ba léegi mën nañu taxaw ba bañ yegg foofu mm. bu fekkee ne lii waa Kër Docteur gis di ko ñaaxee nit ñi ndax ñoom ñu mën koo def soppi coppite seen dundin topp li nga xam ne moom la kilifa yu mag yi wax. Mhm. muy njiitu réew mi ak euh, ministre de la santé et de l'action sociale mën nañu bu ñu ko natee ci Sénégal am ay jéego yu am solo yoo xam ne bu ñu ko doxalee. Mhm. dañ mën a jaakaarlu ak feebar bi mu bañ a mu bañ a gën a law. Mhm. bu ñu xoolee itam euh, yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo am feebar bi xool niñ koy xeexee li ñu ñaan sax mooy fexe ba mu bañ a euh, wéy ba mu bañ romb fi nga xam ne tey yegg na fa. Mm-hmm. Euh, ñu bañ a yegg fi nga xam ne peste defoon na ko wala variole defoon na ko donte nag wax dëgg fa yàlla waruñoo waruñoo naagu. Mm-hmm. dañoo war a sax gën a baaral. liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ndax xeex feebar bi euh, mu nekk nag mbir moo xam ne docteur wax nga ko euh, ba mu génnee ba léegi lu nekk dégg nañ ko ci dafa bëri version ñii gëm nañu ko ñi gëmuñu ko ñii naan ay test biologique la yu rëccëg ñii naan maanaam ku nekk di wax ne yow la Chine États-Unis donc mu nekk mbir moo xamante ne bëri na trop ay mun naa ne théorie complotiste comme ni ko gars di waxee ku ci ne rek di ci ànd sa xam-xam tey jii mun nañu xam exactement ci yéen borom xam yi fan ngeen jàpp ne fa la feebar bi maanaam looloo indi feebar bi. mën nañu indi firnde yii le benn feebar bi lu nekk la ñaar feebar bi doomu jàngoro moo koy joxe ndax xam ngeen ne am na yeneen xeetu jàngoro yoo xam ne du jóge ci doomu jàngoro. yeneen xeetu feebar yoo xam ne du jonge du jóge ci doomu jàngoro. ci téeméer ak juróom fukk ak lu ko romb réew yi nga xam ne tey ñu ngi jànkonteel feebar bi dañuy gis ne feebar bi ñi mu jàpp bari nañu lool ñi mu tëral bari nañu lool eh, ñi mu faat seen bakkan bëri na lool ci kaw yooyu nag ci kaw firnde yooyu ñu joxe ay misaal yoo xam ne dañ ko weer ci gëstu bi nga xam ne yeneen xeetu boroom xam-xam ñu ngi koy gëstu jëmale ko ci feebar bi Euh, muy ñi nga xam ne ñooy spécialiste maladie infectieuse mm-hmm. maanaam jàngoro yi jóge euh, feebar yi jóge ci doomu jàngoro euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci laboratoire yi ñi nga xam ne ñooy jàng biologie dundinu doomu jàngoro ci biir jaww ji mm-hmm. misaal yooyu moo ñuy wan ne doomu jàngoro bi ñu ngi gën di xam nan la mel ak nan lay duggee ci yaramu nit ak bu duggee ci biir yaramu nit yan yàq-yàq la fa mën a indi. loolu mu ngi gën di leer. ñaareel bi ñu ngi gën di xam nan lay jóge ci nit ku feebar dugg beneen nit ku feebarul. Mm-hmm. ba na njëkkee na Chine waaye law na tey ci biir àdduna si sëpp ñetteel bi ci ci ci misaal yi ñu ngi gëstu ngir xool. nan la ñuy taxawee ku yor feebar bi ba du faat sa bakkan li ci gën a neex a gis moo di ne lu nit ki di gën a teel a dugg ci loxo docteur ci lay gën a am wërsëg mucc. bi ma ciy teg moo di ne fii Sénégal amagum na ñaar nit ñoo xam ne amoon nañu feebar bi ñu def analyse gis doomu jàngoro bi jox leen ay garab taxawu leen ba ñu wër ñu defaat analyse. laboratoire ne doomu jàngoro bi. set na seen jóge na si ñoom. Mhm. jërëjëf xam nga yooyu kenn kenn mëntu ko weddi. Mhm. boo demee télévision boo demee internet wala boo booy dem ci li ñu ay réunions yi def ci euh, conférence vidéo conférence dañuy gis ne ay borom xam-xam yoo xam ne kenn weddiwul seen mën-mën kenn weddiwul euh, li ñu tekki ci biir àdduna si ci biir mbirum euh, médecine. Mhm. ñu ngi ciy wax wax bu leer naññ bu ànd ak ay firnde. ca dëkk yu ñuy liggéey ñoom. moo tax dañu naan feebar bi nii lay duggee nii lay feeñoo buñ ko taxawul mën na yegg fii ak fii te buñ ko taxawul itam mën na dem kon ba faat bakkan. Mm-hmm. c'est que loolu yëpp mm-hmm. loolu yëpp leer na. Mm-hmm. kon feebar bi ñu ngi koy gën di xam euh, gën di xam boobu di ñu may ñu gën a am yaakaar ne bu ñu toppee lii ñu wax waa Kër Docteur. Euh, dinañ am ay jéego ngir mën a daan feebar boobu. début bi euh, da ngay dégg ñu naan euh, nouveau type de coronavirus nouveau coronavirus kon mu mel ni amoon na boo xam ne amoon na fi bu nu bu méngoog moom wala muy moom jamono déjà loolu est-ce que dëgg la mais peut-être jamono jooju aussi est-ce que scientifique yi waruñu woon jël temps wu peut comme mosoon na fi am ñu jàng ko xam bu baax feebar bi parce que dafa mel ni dafa dafa bett bettange la. laaj nga foofu laaj bu am am solo. Mm-hmm. boo déggee ñu ko doon ooyee nouveau coronavirus ñaari mbir moo taxoon bi jiitu moo di coronavirus ay xeetu doomu jàngoro la euh, médecine dafa doomu jàngoro ñuy ooyee parasite am yoo xam ne seen tur bactérie la am virus am champignon levure yooyu ay tuuru doomu jàngoro la mhm. coronavirus kon mu ngi bokk ci xeetu doomu jàngoro yi bu ñu tasee tur sax ci tubaab coronavirus mooy virus boo xam ne dafa niroo couronne maanaam lu wërngal këpp mhm. loolu mooy ñu ne coronavirus sous forme de couronne. Mhm. ci tubaab virus yu mel noonu maanaam xeetu coronavirus ay junni junni junni coronavirus moo am feebar bi bu mu feeñee euh, décembre 2019 ca réewum Chine gis nañ ñu mel. moo tax ñu ne coronavirus waaye bi ñu ko yóbbu laboratoire leneen liñ gis ci biir maanaam màndarga yi nga xam ne moo tax doomu jàngoro bi di duggee ci biir yaramu nit di def ay yàq-yàq yi melokaan yooyu ñoom ñoo wuute ak melokaan yi nga xam ne jotoon nañ koo xam ci yeneen junni coronavirus yu ñu xamoon ba pare muy benn ñaareel bi xeetu coronavirus li muy bari bari lépp ba 2019 juróom benn xeet dong lañ ci xamoon ñuy feebar nit yeneen xeetu coronavirus yi donte mën nañu dugg ci biir nit sax duñ ko duñ ko indil feebar duñ ko indil benn jafe-jafe mm. juróom benn xeet dong lañ ci jotoon a ràññee kon bii nii mooy juróom ñaareelu xeet coronavirus mm-hmm. boo xam ne day feebar nit xam nga nag gan la ni ko waxee sànq jékki-jékki yegg si bett nañu waaye itam tontu bi mu ngi gën di gaaw ndax siin bu mu jógee gis ngeen ne dafa njëkk a daaneel ñu bëri siin taxawal ay matuwaay ndax mën a aar askan bi nga xam ne amaguñ feebar bi waaye itam ay matuwaay yoo xam ne moo tax ñu mën a taxaw ñi amoon euh, feebar bi. Mm-hmm. lu muy gën di génne ci biir dëkk yi itam ñu gis ne dëkk yooyu ñu ngi taxaw di ko xeex neexul ba neexul waaye. Mm. ba feebar ba feeñee waa Chine dañoo ne woon ñi feebar nañ toog fi ñu feebaree bu kenn génn yi euh, mu am ay xeetu euh, ay dëkk man ay xeet ay ay dëkk yoo xam ne ñoom dañoo ne woon nanguwuñu seen waa dëkk des Chine ñu jël ay avion dem jëli leen. mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo demoon jëli seeni doom ci réewu Chine. fii Sénégal ñu am wërsëg bu mag wax dëkk suñu njiitu réew ne déedéet boo xoolee médecine ak diine dañoo ne feebar buy wàlle kenn du dem di ko jëli. Mm-hmm. diine sax wax na ko. Mm-hmm. dëgg la. diine wax na ko. Mm-hmm. Euh, médecine wax na ko euh, président de la république nga xam ne li ñuy ooyee politique de santé Sénégal moom moo am gis-gis bi moom moo bind nan nañ ko war a tëralee. te moom xam na ay information yu nit ñi xamul. exactement. mu sukkandiku ci li nga xam ne moom noonu la gisee vision euh, noonu la gisee wér-gu-yaramu Sénégal ci at yi ñu nekk ak at yi ñu jëmal. politique de santé boobu mu jox ko ministre de la santé et de l'action sociale ne ko ni ma bëggee Sénégal am wér gu dénk naa la ko ndax nga doxal ko président ne feebar buy wàlle kenn du ko jëli nit ku feebar am na ñu ko mën a taxawee nit ku feebaragul. am na itam anam yoo xam ne mën nañ ko caar taxaw ndax mu am jàmm mu tax Sénégal damu jël ay doomam boo leen seetloo dëkk yi njëkkoon dem siin jëli seen euh, nit ñu feebar dëkk yooyu ñoom ñoo tegu ci am. Euh, feebar bi ci am feebar bi. kon ñoom bi demee ba gis nag ne feebar bi euh, boo demee fa mu am yow mën nga ko faa jëlee ci ngeen commencé gis ne ñoom tam léegi ñoom dañu naan ah déet léegi bu kenn dem fen fi nga feebaree. toog fa fi nga dëkk donte feebaroo waaye feebar baa nga fa yow itam toogal ci tubaab muy confinement ak quarantaine mhm. kon doomu jàngoro bi lu mu bees bees xam-xam bi itam mu ngi dox ay ay ay ay ay jéego yu am doole yu gaaw a gaaw ndax ñu gën a xam doomu jàngoro bi gën ko mën a xeex. Euh, euh, feebar bi euh, mu ñu ñu feeñ mu feeñ ci Wuhan ci Chine mu nekk épicentre bi déjà est-ce que yéen borom xam-xam yi jot ngeen def ay gëstu ba xam lu tax exactement foofu ak peut-être premier car bi fa jotoon a am ak yooyu naka la demee woon transmission beeg yooyu moom fan la ko jëlee yooyu daal ndax ñu ngi doon wax que nii am na animal bu tudd pangolin yu demee noonu moom fa lay jaar ñi naan ay chauve-souris mu bëri lool ay information mën naa biral ne gëstu yooyu ñu ngi wéy ba léegi li ñu jàppagum moo di ne ci lépp li ñu gis doomu jàngoro bi. ci ab mala la jóge dugg nit loolu moom euh, ba léegi mooy yoon bi xam ne ñu ngi koy topp ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy gëstu moo tax fii Sénégal euh, euh, ministre de la santé et de l'action sociale jiite benn kuréel bu ñuy wooyee comité national de gestion des épidémies di xeex lépp loo xam ne mooy tax feebar buy wàlle bañ a law ci biir Sénégal ci biir comité boobu ci biir kuréel boobu ñu am ci ay vétérinaire mhm. maanaam ñoo xam ne dañoo jàng wér-gu-yaramu mala nekk ñun dañoo jàng wér-gu-yaramu nit ñoom lañuy ñuy jokkool ci seen xam-xam ñu ñuy jàppale ndax ñu gën a xam doomu jàngoro bi fan la jóge nan lay duggee ci nit nan lay amee doole ci biir yaramu nit mhm. nan la mën a jógee léegi nag ci nit dem ci nit mhm. muy lu am am euh, lu am am solo. ci kaw loolu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy gëstu itam nan lañuy ñuy euh, fajee feebar bi nan lañuy wàññee doole euh, doomu jàngoro bi wala sax nan la ñuy reyee doomu jàngoro bi ñoom itam dañuy xool nan la doomu jàngoro bi di mel ci biir mala ak nan la doomu jàngoro bi di mel ci nit xam-xam boobu lu muy gën di leer paj mi. ñu gën a am yaakaar ne bés dina gën a am doole. waaye li muy gën di leer ñu gën a am yaakaar ne euh, prévention maanaam liy aar ci feebar bi. dina dem sax ba wuut ab ñàkk boo xam ne ku ko ñàkku euh, doo doo am jàngoro euh, coronavirus dañ ci gën a am yaakaar ci jokkoo yi nga xam ne borom xam-xam yooyu ñu ngi koy jokkoo seen biir. ñun fii Sénégal am nañu borom xam-xam yooyu. moo tax ñu dajal leen bool leen ci kuréel boobu ñuy gëstu di xool. naka la Sénégal mën a xeexee euh, jàngoro boobu. Mm-hmm. ci feebar bi dañuy tudd stade 1 stade 2 ba ay stade 3 tey mun nga ñëw un peu ci peut-être stade yooyu nu ñu leen mën a ràññeewee ak peut-être côté mandarga yi. Mm-hmm. loolu itam am na solo. Mm-hmm. ndaxte feebar bi def di ne doomu jàngoro bi su duggee ci biir yaramu nit ki nit ki du feebar ci saa si. gis nañu ne mën na dem. ba fukki fan ak ñeent yoo xam ne nit ki mu ngi yore doomu jàngoro bi waaye du am benn màndarga buy wane ne dafa feebar ñaareel bi dañoo seetlu ne yaram bu tàng bëri na li muy teel a feeñ bu fekkee ne doomu jàngoro bi dem na ba am doole su ma jëlee fukki fan ak ñeent yi ma lim sànq bëri na li ñuy gis ne bu ñu demee ba fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent bu fekkee nit ki dafa am doomu jàngoro bi yaram day tàng muy lu am am solo dafa am solo ba tey dañoo ne képp koo xam ne sa yaram dafa tàng fekk nga jógee ci dëkk bu am coronavirus wala nga laale woon ak ku am coronavirus fa sa yaram tàngee wooteel téléphone 800 00 cinquante 50 doo fay dara mm-hmm. wala nga woote téléphone 15 15 doo fay dara ka wuyu nga ne ko damaa jóge ci dëkk bu am coronavirus su su ma yaram dafa tàng dama laale woon ak ko amoon jàngaro coronavirus su ma yaram dafa tàmbali di tàng kon ci misaal yi ñu jàpp ne yaram bu tàng boo bu yaram bu tàng boobu am na ci solo bu baax a baax mm-hmm. ñaareelu mandarga yi mooy lépp loo xam ne day wone ne noyyi nit ki dafa am lu ci soppeeku yaram bu tàng ànd ak noyyi bu gën a gaaw yaram bu tàng ànd ak noyyi bu gën a yéex yaram bu tàng ànd ak noyyi boo xam ne dafa ànd ak riir mm-hmm. yaram bu tàng bu ànd ak nit koo xam ne day fat loolu itam ay mandarga la yoo xam ne ku ko seetlu ci sa yaram wala kuñ ko jàmbat nga woote 800 00 cinquante cinquante wala nga woote quinze quinze mm-hmm. mën na dem nag ba romb foofu mm-hmm. mën na dem ba yaram bu tàng boobu noy boobu nga xam ne dafa am lu ci soppeeku wala fat boobu nga xam ne jafe-jafe noy boo nga xam ne feeñ ci euh, euh, nit ki mën na dem ba euh, baar nit ki wala put bi di métti mel ni ko amee angine ay Sénégal yu bari xam nañu mu tudd angine. Mhm. mën nañ dem ba nit ki day mel ni buñ ko ëpp indiwul ngelaw buñ ko ëppul dina de ci saa si. mën nañ kuy étouffé daal kuy étouffé mhm. ci ci tubaab. Mhm. Euh, yaram bi di lox wala yaram bi di miti euh, wala cër yi di miti. di raf-raf yi articulation yeeg yooyu yax yi loolu yëpp mm. mu ngi wone ne doomu jàngoro bi mu ngi gën di am doole ci biir yaramu nit ki te mu ngi koy mu ngi koy gën di ëpp doole. Mm-hmm. léegi nag ñun ñun ñooy xool euh, su waxee ñun mooy waa kër mm-hmm. dañuy xool mandarga yi feeñ ci yow. Mm-hmm. mandarga yooyu lu ñuy gën di bëri wala mandarga yooyu lu ñuy gën. di wane ne bu buñ la taxawul sa bakkan xëj na ci feebar bi ci luy naan euh, kii mu ngi stade 1 kii mu ngi stade 2 kii mu ngi stade 3 loolu pour ñun la docteur pour ñu xool yan garab lañ la war a jox bu fekkee ne stade bi nga toll. Mm-hmm. waaye ngir loo xam ne dafa war a dem ci askan wi ñu ngi leen di ñaan bu ñu xool stade 1 bu ñu xool stade 2. Mm-hmm. nañ jàpp rek su ma yaram dafa tàng damaa jóge ci dëkk bu am coronavirus su ma dafa tàng damaa. laale ak ku am coronavirus suma yaram dafa tàng damaa laale ak ku doon faj coronavirus wala ku laale ak coronavirus wala sax suma yaram dafa tàng te xaw ma la moom moo jot comme dañoo nekk ci jam jàng eh, jamono yoo xam ne eh, feebar baa ngi law ci biir adduna si buñ sax xaar bu ñu gisee loo xam ne ñaaw na ci njort rek ñu woote ci ñaar numéro yu ma wax. Mm-hmm. waa Kër Docteur ñëw ñoom xam nañu. nan lañ lay taxawoo. Mm-hmm. Uh, mu mel ni moom mandargam yi dafa nurook ay yeneen mandarga yoo xam ne ñun dañ ko yàgg ko am muy jëm ci ay grippe ak ay palio yu demee noonu asma ak ñoom ñoom seen daal. Mm-hmm. loolu nga wax gënati na am solo. Mm-hmm. ci ñetti euh, mbir bi jiitu damay dëggal li nga wax. yaram bu tàng du coronavirus kese moo koy joxe. baat buy métti put buy métti. du coronavirus dong ma koy joxe ñu bëri am nañu fi angine nekkul coronavirus. Mhm. angine la woon yaram buy lox cër yi métti du coronavirus kese ma koy joxe. Mhm. kon benn dëggal naa li nga wax. Mhm. ñaar yooyu nga xam ne day feeñ mandarga yooyu di feeñ ci coronavirus te coronavirus bokk ko ak yeneen feebar tax na bu fekkee nit ki daf koo am ci anam yoo xam ne dañoo ñaaw njort ne. dafa jóge fu am euh, euh, dëkk bu am coronavirus. wala dafa laale ak am coronavirus balaa ñoo xool yeneen feebar yi nañ njëkk a xool ndax du coronavirus. ñett sa laaj bi may na ma ma wax ñëpp wala ma waxaat ñëpp ne coronavirus duñ ko xamee ci bët wala ci laal yaramu nit ki déedéet ngir ñu mën a dëggal ne nit kii feebar. coronavirus moo ko jàpp il faut que ñu def analyse laboratoire te fii Sénégal Institut Pasteur dong moo ko fiy def agum kon bépp résultat bu génn ne coronavirus la Institut Pasteur moo ko mën a wax moo tax Institut Pasteur bu liggéey ba pare day indi résultat yi jox ko monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale moom am na ay équipe yu mu teg ñoom ñuy jël résultats yooyu xam ne institut Pasteur la jógee te coronavirus la. keneen ku wax ne euh, mën na euh, li tubaab dooy diagnostic mën na def diagnostic coronavirus euh, wala mën na jaar nii ak na le ba ni kii coronavirus la am jàpp leen fii ci biir Sénégal ne. institut Pasteur donc moo mën a biral ne nit kii li ko feebar ci coronavirus la jóge mm-hmm. kon mm-hmm. ñett yooyu. tax na laaj bi nga laaj nii am solo lool. Mhm. tey jii nii est-ce que tamit benn côté bi ñun sàgganuñu parce que bu ñu demee ba peut-être institut Pasteur kese kese kese mun moo mën a firnde lu mu demee noonu ak situation fu mu toll est-ce que tey ñun waruñu woon peut-être développer suñu laboratoire yi suñu plateau médical yi ak yeneen ak yeneen pour vraiment mën a dékku situation yu mel nii. Ah, dama lay wax sax ne. Mhm. ndam la ci Sénégal ñu am. lu toll ni ak lu mel ni. institut Pasteur. Mhm. ndam la euh, ma jéem la ko faram-fàcceel. Mhm. gis nga institut Pasteur boobu mhm. mu ngi fi Sénégal ñu ñoo ko moom. waaye ay réew yu bëri yoo xam ne ñoo ñu wër. bu ñu amee ku ñu ñaaw njort ni coronavirus la bu ñu defee seen prélèvement fii lañ koy indi institut Pasteur. Euh, sànq bi nga may euh, nuyool ak mbokk auditeurs yi. nee nga leen euh, aéroport Blaise Diagne laa doon liggéey mhm. euh, prélèvement yooyu yu si gën a bëri aéroport lañ lañ doon jaar mhm. ñu indi leen pour yóbbu leen Insu Pasteur mu xool ko yónnee résultat yi dëkk yi nga xam ne ñoo ko fi indi mhm. ay dëkk yu bëri mënuma la sax wax ñaata dëkk ñooy am ay indi ko fii Sénégal parce que ins lu toll ni am euh, ci mën-mën ak ci waaw Mm. ci lépp ci jëm ci xërëñ ñaareel bi feebar yi nga xam ne ni ñuy wal dafa gaaw wóorul laboratoire yëpp di ko liggéey mm. ndax boo ko defee rek day mel ni dangaa jël ñëpp ñuy liggéey ci laboratoire yi nga teg leen ci anam yoo xam ne doomu jàngoro bi mën na dugg seen seen yaram mm. ndax xeex bu ñëwee mesure de mu ngi ci tamit xeex bu ñëwee doo jël sa doole yëpp sotti ko ci benn bërëb da ngay teg ñii fii teg ñii fii teg ñii fële. loolu day tax nga gën a aar sa réew. terewul nag am nañu yeneen laboratoire yoo xam ne. tey bu ñu demoon ba ba soxla ko ci ci xam ak ci ci ci mën-mën mën nañu def ay analyses yoo xam ne bokk dina ci bokk ñuy xool lan mooy coronavirus mais Sénégal ni mu organisé ministère de la santé et de l'action sociale ni muy doxalee. Euh, lépp lu jëm ci euh, aar askan wi dafa tax ci biir organisation boobu ñu ne feebar bi ak ni mu mel ci ci mën a gaaw a law ci biir askan wi nañu jël yépp yemale ko ci benn bërëb mhm. boo xam ne doomu jàngoro bi du mës a génnee foofu dem ci beneen ci beneen mhm. bref lii nii dafa bokk ci organisation stratégique Euh, ministère de la santé et de l'action sociale. Euh, leer na euh, léegi li nga xam ne moom mooy ba tey ci ci mbir mi parce que may fàttali ni tey mbokk yéen a ngi déglu seen émission SOS santé ak docteur Barnabé Gningue moom maa ngi leen ko doon wax sànq ci ndorteelu émission bi moom mu ngi nekkoon ancien médecin chef fële nga xam ne moom mooy ca AIBD di aéroport international Blaise Diagne mu nekk bërëb bu stratégique tey lu bëri mun naa ne fa la aw feebar it foofa fa dugg ci réew mi. <laughs> tey est-ce que Sénégal yéexul ci tëj ay frontières am. yéexul ci tëj frontière. ndaxte loo gis itam dafa am ay anam dafa am charte maanaam yoon niñ ko biñ ko war a euh, jaarale feebar boo xam ne dafa law si biir àdduna sëpp jafe na ab réew wéet moom kese di ko xeex maa ngi fàttali ñaari mbir yu mu wax sànq ci biir weeru janvier 2020 organisation mondiale de la santé dafa ne feebaru coronavirus bi nekk euh, Chine léegi urgence de santé publique de porté international maanaam yéen réew mi yë yéen réewu àdduna si yëpp feebar bi mën na ñëw ba foofu wala mën na am euh, diisaay boo xam ne yéen di ngeen ko yëkk urgence de santé publique de portée internationale kon yéen ñëpp jàpp ci. ñaar ci fan yi ñu génn OMS ne coronavirus boobu bu tàmbale woon Chine décembre 2019 léegi pandémie la maanaam mu ngi wàlle dugg na ci juróomi continent yi nga xam ne euh, mooy àdduna si ah, Sénégal ab dëkk la ci biir dëkku àdduna si yëpp mm-hmm. Sénégal day jokkoo ci dem day jokkoo itam ci dikk mm-hmm. maanaam waa Sénégal dañuy tukki waaye Sénégal itam day dalal ay ay ay gan. ba feebar balaa feebar bi tàmbale bi ñu doon ubbi aéroport international Blaise Diagne ministre de la santé et de l'action sociale taxawal na fa li ñu ooyee ci tubaab contrôle sanitaire aux frontières aériennes. Mm-hmm. muy ay docteurs ay infirmiers ay sage femmes ay agents d'hygiène ay préventionnistes yoo xam ne seen liggéey moo di ñuy saytu aéroport bi lépp loo xam ne misaal la buy wane feebar buy wale mu ngi dugg si. ñu téye ko aéroport euh, itam euh, ñiy liggéey aéroport am dund bu sell boo xam ne duñu feebar feebar buy wàlle duñu sax feebar bu ko mënee. Mhm. mais xam nag nit moom léeg-léeg foog mu feebar. Mhm. ñaareel ba ba feebar ba feeñee Chine ministre de ministre de la santé et de l'action sociale moo ñëwal boppam bi aéroport Blaise Diagne mhm. ngir yeesal contrôle sanitaire ba fa nekk ngir ñu gën a yëkkati niveau yi ndax. ñu teel kar feebar bi ñu topp ko xam nga siin sori na ak Sénégal mm-hmm. waaye Chine amul avion bu jógee Chine dugg ci Sénégal directement mm-hmm. ah ñu gis loolu bu fekkee bato bato bu jógee siin balaa mu ñëw Sénégal ñii liggéey port nee nañu euh, dina ëpp weer balaa moo yegg si mm-hmm. suuf moom waxatuma ko kenn du doxee Chine ba Sénégal. ministre de la santé topp loolu itam sant ñu ñuy saytu feebar bi nekk siin nan lay lawee ci biir Chine ñu ne waa Chine dañoo tëj euh, diwaan bi nga xam ne fa feebar ba nekk kenn du génn kenn du dugg feebar bi jógee Chine dem Asie ñu ne ah Chine tëj na ay frontières terewul feebar bi génn na ñu jóge Asie dugg Europe ba feebar duggee Europe ci la ministre de la santé ne benn képp ku jóge ci Europe dugg Sénégal jël leen turam santam fa mu dëkk ak euh, fa mu dëkk itam ngeen jël adresse keneen kooku bu mu génne këram fukki fan ak ñeent ñu xool ndax du am feebar bi loolu bañ ko tàmbalee ay junni junni junni nit lañu bind seen tur ci suñu ordinateur ak seen numéro téléphone di leen woo téléphone waaye la moo feeñ xam nga bu ñu waxee ne boo ñibbee sa kër bul génn boo ñibbee sa kër bul dem ci xew yi boo génn boo duggee sa kër bul di jaxasoo nit ñi. Mhm. teg ci ne la bu fekkee ne dangaa jóge ci dëkk bu am coronavirus boo duggee Sénégal ngir yàlla seeram bu tàngee wala boo amee benn misaalu feebar ngir yàlla bul dem fenn wootal téléphone xam nga bu ñu la ko waxee. Mhm. nga dem ba sa kër yaa mën a sàmm sa bopp. mais ñu gis ne premier cas yi par exemple tubaab bi njëkk bi ko njëkk am moom euh, ñi mu jot a joteel maanaam ñi mu jotal kii yooyu bëriwul moo tax affaire bi yem fa ak ba keneen ki tamit anglaise beeg yooyu boobu tamit tam mais nañu gis ne bi ko sénégalais amee ci la affaire bi mel ni daal lu xaw a taaweeku daal. yow nag yaa ngi def ci li ñuy wax ci olof euh, sax xam nga su ma laaj. gis nga loolu ñu def loolu lañ santaane xam nga feebar bi mu mënuñu wax ne dina dal diw wala du dal diw. waaye dañoo ne boo ñaawee njort rekk ne feebar bi la ngir yàlla berul tëjul sax sa néeg ak caabi nga woote téléphone xamal moo tax boo jegewoo keneen rek di ko wàll feebar bi tey ñëpp ñi ko am euh, ñaaw njort ne feebar bi la xam nga wax naa la ne laboratoire moo mën a wax ne lii coronavirus la mm-hmm. waaye ñi ñaawoon njort ne feebar bi lañu am bañ a jege nit ñi dem bero woote téléphone ñooñu wala ñu kenn daanaka mais ñi nga xam ne euh, xëy na jëluñu matuwaay yooyu. ak tamit euh, nekk sénégalais rek fu mu ñëw fu ne nga dugg fa ak yooyu. wax dëgg neexul ba neexul. Mhm. waaye loolu nag lawal na feebar bi. Mhm. waaye bu fekkoon ne ñëpp ñi ko am dañoo toogoon woote téléphone nu ñu mën di toll foofu dong lay yem mais duñ ko jox beneen nit. Mhm. kon salaat bi ak waxtaan bi Euh, may nañu ñu fàttali ne xeex bi ñuy xeex coronavirus fii ci Sénégal wax dëgg fa yàlla gannaaw ñi war a wax maanaam kilifa yi jiital ci président de la république gannaaw kilifa yi wax nañ ba noppi wax dëgg sénégalais bu nekk moom moo war a taxaw xeex feebar bi. est-ce que xeex itam. ni nga xam ne doomu jàngoro bi mën na fa jaar ba dugg ci biir askan wi. est-ce que gisoo tamit benn mun naa ne ñun ñëpp la sax dañoo xaw a daal yenn saa di soofantal ak xaw a dëgër bopp tuuti ñu baal ma ci kàddu gi euh, donc tey ñu gis ne euh, première information yi ñu daan dégg dañ doon wax que ni ah moom de du dal nit ku ñuul yabul nit ku ñuul ak yooyu mais dafa dem ba ci biir euh, feebar bi daanaka mu teg ñu gàcce ndax fu mu toll nii nit ñu ñuul yi ñu ngi koy ñu ngi koy am saa su nekk. Hmm. jërëjëfati. Hmm. jërëjëfati ñetti yoon jërëjëfati. xam nga sànq nee Chine. dafa sorewoo ak Sénégal. Chine dafa sorewoo ak dëkku Afrique yi. fi nit ñi ñëw li gën a bëri. Eh, ñun biñ toppee feebar bi ni muy doxee ci biir Chine topp ni mu génnee Chine dugg yeneen dëkku Asie jóge foofu ñëw Europe dem états uni amerique sax ci ci boppam. ñu gis ne yoon bu bu gudd boobu moo tax doomu jàngoro bi yéex a egg si Afrique segam dafay yéex ñi gaaw lameñ ñi gaaw wax ne ah jàngoro bi du laal nit ku ñuul dee mu ngi woon si yoon bi dafa yegg see coton loolu moo tax ba mu génnee Europe ci la dugg si Afrique ba mu duggee ba mu génnee Europe ci la ñëw ci dëkk yi nga xam ne dañoo ne euh, dafa tàng kon yàgg boobu mu yàgg ci yoon bi moo tax xëy na ñit ñi gaaw a wax ne doomu jàngoro bi du dem ci dëkk bu tàng wala doomu jàngoro bi du laal nit ku ñuul doomu jàngoro bi nit lay feebar xoolul deru yaram bi nan nan nan ndax dafa ñuul ndax dafa xonq wala dafa xool loolu de doomu jàngoro bi nit lay feebar nit nag nit la. Mhm. mu nekk lu am solo parce que quand même liñ ci joxtoon ak ay information yooyu wax nga ko léegi ay fu tàng du fa dem ak ay daal yu yu xaw a doy waar daal ay système immunitaire euh, nit ku ñuul moo gën a xaw a dëgër rek yu bëri na ay info parce que début bi sax ñu ngi wax que ne mag ñi la gën a sonal mais gis nañ jeunes yi di ko am aussi. très bien. Mm. gis nga nag euh, foofu li ñu fa mën a jàng wala li ñu fa mën a jàngat te loolu dañ ko taataane ci ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci maladie infectieuse doomu jàngoro bi mën na jàpp bépp nit wax nañ ko sànq waaye doomu jàngoro bi mën na jàpp nit muy xale muy mag muy góor muy jigéen mm-hmm. fii Sénégal ki gën a ndaw am feebar bi mu ngi am ñaari at mm-hmm. ki gën a mag mu ngi am juróom ñett fukk yu teg am jàpp na góor jàpp na jigéen mm-hmm. kon xam kon lëmbee na li des kay moo di ne ñun waa Kër Docteur lan moo tax ñuy xool ndax góor la ndax jigéen la ndax mag la ndax ndaw la ñaari mbir la benn doomu jàngoro bi am na ñoo xam ne bu duggee seen biir yaram fekk ñooñu amuñu beneen feebar ñu ngi ànd ak seen doole bëriwul li leen di feebar bi di sonal. Mm-hmm. dañ ko am dañu wër. Mm-hmm. muy am lu am solo. Mm-hmm. ndax loolu mooy ne kon ah day leen lekk bu baax. day leen naan ndox bu seen yaram gën a am doole day leen sangu bu set day leen nelaw bu doy. Mm-hmm. ndax sangu bu set day yokk wér-gu-yaram nelaw nelaw bu doy day yokk wér-gu-yaram. Mm-hmm. kon ñu ne doomu jàngoro bi bu fekkee ne yow yaa ngi ànd ak sa doole bariwul li mu lay sonal waxuñu ne du la dugg de dañoo ne bëriwul li mu lay sonal. Mm-hmm. ñaareel bi ñu seetlu ne. ci biir ñi muy sonal ñi muy faat seen bakkan mooy ñi màgg lool walla ñi xam ne dañoo amoon yeneen feebar balaa coronavirus ñëw mm. ñaari mbir yooyu moo tax ñuy euh, natable mag ak ndaw góor ak jigéen mm-hmm. waaye ci njëlbeen moom feebar bi ràññeewul leneen lu dul nit doomu aadama mm-hmm. am na solo léegi li nga xam ne jëm na ci wàllu prévention bi ci dañuy ñëw parce que tey chaque fois virus bi dafay am yu bees yoo xam ne dañu ko ciy dégg déjà aussi temps de vie bi nga xam ne da koy am ci air bi ñu ngi doon wax que ne début bi moom du yàgg ci air bi du yàgg ci jaww ji mais après da nga gis yeneen information yi ne mën na dem ba ay 3 heures de temps affaire yi daal xaw a indi ay tiitaange daal est-ce que mën nga ci indi ay leeral docteur. Eh, daf may may rek ma njëkk a fàttali ne sànq nee naa coronavirus bi. gan la moo tax ñu koy ee nouveau coronavirus. may ma sax ma jàll ne tey boo leen di gën a dégg Covid 19. mooy tour bi ñu ko jox. donc nouveau coronavirus mu ngi tudd Covid 19 mooy tur tur bi ñu ko bi ñu koy ràññee. te mu jóge ci anglais maanaam coronavirus la boo xam ne 2019 la feeñ. Euh, comme gan la. dañ koy jàng xam nga gan dañ koy seetlu gan dañ koy déglu gan léegi sax nga jege ko ngir gën ko mën a xam kon gëstukat yi muy ñiy liggéey laboratoire muy biologie muy médecin gësukat yi ñu ñu ngi gën di xam doomu jàngoro bi kan la nan la mel nan nan nan nan lay doxalee mbiram ak nan lay indee ay yàqu-yàqu ci biir yaram boo xam ne euh, fa la dugg. ci biir gësu boobu ñu ngi gën di xam ne bu doomu jàngoro bi génnee ci nit ki. nekk ci biti mu mu dund lu yàgg walla mu dund lu gàtt ci biti dafa euh, dañ koy méngale ak anam yu bari ma jël euh, ñaar walla ñetti misaal. Mm-hmm. bu fekkee ne fi mu génn. Euh, dafa tàng lam fay dund moo gën a gàtt ni fa mu génnee dafa dafa sedd. kon tàngaay bi ñi ko doon wax am nañ tuuti dëgg. par contre du dëgg. Mhm. parce que doom day dem day dem fu nekk. Mhm. xam na moo tax c'est que ci biir yaramu lay dund. Mhm. dundul ci biti. maanaam boo boo bu duggee yaram sa yaram am na tàngoor boo xam ne du ko du ko du ko romb. xam nañu naan température normale. maanaam tàngaay yaram boo xam ne du feebar. 37 degré euh, mais bu fekkee ne doomu jàngoro bi nekkul ci biir yaram maanaam nekkul ci déretu nit. ci déretu nit mën faa dund parce que déret bi moo koy dundal loolu laa ne biti bi lu mu gën a tàng mu fay gën a ñàkk a yàgg. bu fekkee mu ngi ci biti biti boobu lu muy gën di tooy mu fay gën di mën a dund. lu muy gën di nooy mu fay gën di yàgg tey boo ko jëloon tegu ci aw seng boo teg ci biti. ak nga jël ko tëmal ko ci ndox wax dëgg ci ndox bi lay gën a yàgg ne ci seng bi loolu ay misaal rek waxuma day dund ci kaw seng wala day dund ci biir ndox de waaye ay misaal rek mm, naka nit ñi déggee noonu voilà ah. nañ ko déggee misaal balaa ñu ne docteur yi moo ne lii ak lële mm. euh, kon na muy mel ci biti ñu ngi gën di ko jàngat jé ñu nag fii ak ay weer fii sax ba ay at ah, dina am yeneen euh, xam-xam yuy gën a leer jëmee ci coronavirus bi nga xam ne moom la ñu jànkonteel ci jamono ji donc gëstu bi mu ngi dem di wéy mu ngi dem di wéy saa yu ñu demee nag bu am ci lu ñu leer dañ koy génnee fësal ko ne bii moom wóor nañu. Mm-hmm. ñu ngi ñu ngi gëstu gëstu beneen. moo tax sànq man la lépp lu jëm ci paj mi ak lépp lu jëm ci aar bi loolu ay gëstu la yoo xam ne jeexagul. Mm-hmm. coronavirus xamaguñ ko euh, lépp loolu moo tax ñu ne kon moytu leen mooy. liy aar feebar bi moom nga wax sànq. moytu leen feebar bi mën na jaar ci loxo yu tilim de leen raxas seen loxo. raxas bi gën a wóor mooy ndox ak saabu te itam waxuñu nga tëmbal loxo yi ci biir ndox mi laal tuuti saabu génn waat déedéet am na ñu koy wone ci misal raxasu boobu. ni ngay raxasee biir loxo bi biti loxo bi ci diggante baaram yi wee yi biir wee yi biir wee mm. dañ koy dañ koy dañ dañ koy won nit ñi ci ay euh, euh, image mm-hmm. ndax ñu jàng ko wala bu fekkee da ngaa nit ki muy raxas loxo di la woon nan lañ koy defee moo tax raxas boobu raxas boobu mënul gaaw euh, dem nañu ba ne bu mu nee dem ba 3 minutes sax day day gën a baax rek ndax saabu bi lu muy gën a yàgg ci loxo bi ci lay gën a rey doomu jàngoro bi bu fekkee rek da ngaa génne sa kër nekk foo xam ne amoo fa euh, ndox ak saabu nga jël li ñuy ooyee alcogel mu ngi nekk ci ay ay butéel yoo na ne ñu ngi koy jaay. bu euh, toll ñëpp a ngi daw jëmale moom. ñëpp ngi daw jëmale moo tax euh, ñu ngi nuyu madame le ministre. Mm-hmm. du commerce ndax wax dëgg jël na ay dogal pour alcogel boobu ñu koy jaay ci njëg yoo xam ne ñoo ñoo maandu. Mm-hmm. madame le ministre. Euh, ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant. ci euh, taxawaay boobu bokk na sax ci li nga xam ne ñun dañoo jàpp ne loxo ministre du commerce la ci xeex coronavirus fii si Sénégal. Mm-hmm. donc alcogel boobu nga koy euh, jëfandikoo ngir mën a raxas say loxo terewul nag mm-hmm. donte def nga alcogel bëccëg bi yëpp. Mm-hmm. soo demee ba egg sa kër. raxasul ak ndox ak saabu balaa ngaa dugg ci biir kër gi balaa ngaa nuyoo balaa ngaa laal dara ci biir kër gi. ñaareel bi doomu jàngoro bi day jaar ci tuflit kon booy sëqat ak booy tisooli na nga am luy nëbb sa gémmiñ lu mel ni mouchoir wala boo amul leneen looy def sa gémmiñ euh, nga banque sa loxo nga sëqat wala nga tisooli ci biir loxo bi doomu jàngoro bi yem foofu su nekkee am nga ko itam euh, boo taxawee sa diggante ak beneen nit na na na dalee meetar ba ñaari meetar day tax doo ko mën a wal doomu jàngoro bi euh, loolu moo tax ñetteel bi masque yooyu ñuy wax masque bi gën naa am solo ci ki nga xam ne dafa am feebar bi pour moom mu bañ a wàlle xam nga ñu bëri dañuy jóg rek daw di wuti masque di sol docteur côté boobu moom dama la ci appuyer parce que masque yi moom euh, je pense que ne communication war nañ ko gën a xoolaat ndax da ngay romb ku sol masque boo xam ne nañ ma baal day tilim tilim ngoo xam ne moom sax beneen virus la ci daal di jëlee. jëf mm. mën naa cee euh, indi ñetti ñetti tomb. Mm-hmm. bi jiitu mooy am na liggéey yoo xam ne boo koy def yow muy liggéey yaa war a sol masque moo tax ñun bu ñuy def bu ñuy former ñiy liggéey. dañuy xool yow ban façon liggéey ngay liggéey ñu xool ndax war ngaa sol masque ak kañ nga ko war a sol man mi docteur su nekkee maa ngi seet malaad koo xam ne maa ngi ragal ne dafa am coronavirus man damaa war a sol masque parce que dinaa ko jege jege boo xam ne du mot du mot meetar donc yenn liggéey yi baax na ngay sol masque ak yenn liggéeyukaay yi baax na ngay sol masque. soo liggéey foo xam ne dafa bëri poussière baax na nga sol masque. soo sooy liggéey foo xam ne dafa bari ay nit yoo xam ne dañuy jógee fu nekk comme aéroport bu fekkee yow yow yaa taxaw fii ñëpp di jaar baax na nga sol masque bu fekkee nit ñi yegg si nañu mais bu fekkee nekkul bul sol masque donc benn ci yenn liggéey liggéeykat yi wala yenn liggéeyukaay yi baax na ñu fay sol masque ñun xam nañ ko bu ñu def formation dañ koy wax ñooñu ñaareel bi ki am feebar bi war na sol masque moom sax laa waroon njëkkee kooku moo war a gën sol masque ndax mu bañ a génnee doomu jàngoro bi ci yaramam jaare ko ci tuflit bi jox ko keneen ki feebar ki moom moo war a njëkk a sol masque ñetteel bi masque yi ay xeet la am na masque boo xam ne day tax ngelaw bi jóge ci biti du dugg lu bari am na masque boo xam ne yow li ngay nooyi du du dem fu sori am na masque boo xam ne day dugal day bàyyi ngelaw mu dugg bàyyi ngelaw mu génn mais loolu technique la mm-hmm. Euh, dañ koy jàngalee fa ñu ko war a jàngalee euh, ak ñi ko war a jàng ndax ñoom ñu mën koo jëfandikoo kon kan moo war a sol masque ak kan kañ la war a sol masque bu fekkee yaa ngi liggéey foo xam ne wóoru la te kuy liggéey kër docteur nekku fa nga mën koo laaj wooteel ñaari numéro yi li ma la wax sànq numéro yi boo wootee doo fay dara ma fàttali leen bi njëkk mooy cent zéro 00 cinquante cinquante beneen bi mooy quinze quinze ñun nag bër bi nga xam ne ñoo fay liggéey ñu nga fa ñu ñooy def formation bi directement wax nit ñi kañ la kañ la war a sol masque ak kañ la warul sol masque. Euh, ma ñëwaat nag ci yeneen anam mi su nekkee mouchoir nga jëfandikoo ndax euh, muur sa gémmiñ wala sa bakkan ndax yaa ngi euh, tisooli wala yaa ngi sëqat mouchoir boobu bul ko sànni fu la neex sànni ko foo xam ne kenn du ko laal sànni ko foo xam ne mouchoir boobu du. jul doomu jàngoro bi euh, jàllale ko ci ci keneen. Mhm. bu fekkee fi ñuy liggéeyee la na doon poubelle yoo xam ne day dafa am tëjukaay euh, bu fekkee feneen la yow daal na la seetal seetal bu baax ne yaa ngi koy sànni foo xam ne musal bu du wàll du wàll kenn. léegi sax suul ko mm. wala lakk ko. Euh, justement docteur pourquoi ñu naan nga tisooli ci. fii nii nga xam ne moom mooy bi banque sa loxo sëq pourquoi ñuy wax foofu foofu du am risque wala exactement. xam nga nit mënul boppam. man su ma amee doomu jàngoro bi am naa ko ba pare mën mën mëntuma ko jox sama bopp mhm. muy benn ñaareel bi boo gisee ñu ne bul tisoo li wala bul euh, sëqët ci sa biir loxo mhm. c'est que boo paree sa loxo boobu mën nga cee nuyu nit fàtte mën nga cee laal ab caabi mën nga cee ab téléphone mën nga cee lekk mhm. euh, fekk nga bokk lekk bi ak ñeneen maanaam loxo li ñu koy jëfandikoo dafa bëri ba di nga ko jëfandikoo te sa xel du ci nekk waaye bu ñu nee bànkal sa loxo nga tisooli foofu wala nga sëqat foofu foo foofu bëriwul la fa la fa la fa nit di yegg te itam euh, day tax doomu jàngoro bi dina gaaw a dem ci jaww ji du du fa yàgg mu dee te bu dee dootul mën a euh, lor kenn mm-hmm. ndax sax dootul mën a dugg si biir yaram nit ba di fi indi ay yàqu-yàqu am na am na solo émission coronavirus moom liñ ci mën a wax dafa bëri tellement que euh, duñu mën a wax lépp mais peut-être rek euh, am ci am solo loo xam ne dinañ ko ci tudd euh, ñu wax ci traitement yi docteur parce que quand gis nañ ne Sénégal ñaar wér nañ ci donc loolu mu dalal xel yi daal mu dalal xel yi donc feebar bi amul amagul vaccin walla lu koy mën a faj carrément ñu ne lii la mais nit ñaa ngi wër quand nit ñaa ngi wër te docteur. yi koy yi di faj xam nañu lan moo tax ñu ñuy wër mm. moo tax baax nañu ci def ay waxtaan bi jiitu mooy looy gën di dugg kër docteur ngay gën a am wërsëg wër ci feebar boobu dama ne dugg kër docteur yi wax ma nga dem maanaam wax ma nga am feebar bi jóge sa kër yaa xam dangay dox yaa xam da ngay dugg oto dem ko docteur déedéet ndax boo defee loolu ci yoon bi di joxe doomu jàngoro bi di ko jox yeneen nit danga war a woote ñu jël si la ñaareel bi bu sa yaram tàngee bul ko bul ko soofantal bul ko bul ko xeeb bul bu sa yaram tàngee wooteel ñetteel bi sa yaram mën naa bañ a tàng waaye nga gis ne nga am jafe-jafe nooyi bul ne ah man de suma asma bi moo ma daaneel bul ne ah man de xam naa damaa sonn déet wóorul boo ñaawee njort rek boo gënee boo gisee benn misalu feebar rek wala benn mën nga feebar rekk ci sa yaram ngir yàlla wooteel ñetteel bi boo ñaawee njot ne feebar bi mu ngi lay dugg ngir yàlla beral sa bopp balaa ñu laa ber na ngay bere sa bopp nag yow yaa xool fan la la feebar bi fekk nga xool ban beru moo gën a am solo foofu nga def ko après nga woote wala nga santaane ñu wooteel la ñetteel bi ñeent ñeenteel bi li tax ñuy wër mooy fekkee ne euh, doomu jàngoro bi fekk na la sa diggu doole nga teg ci teel dem teel a dugg kër docteur am nga euh, am nañu yaakaar bu baax ne di nga bokk ci ñiy mucc ci feebar bi juróomeel bi nag c'est que boo demee kër docteur itam am na ñuy taxawoo ndax xëy na virus bi amagul amagul garab bu koy faj virus bi amagul vaccin bu koy aar maanaam ñàkk bu koy aar waaye yàqu-yàqu yi virus bi di indi ci yaramu nit ñun waa Kër Docteur mën nañu defar yàqu-yàqu yooyu. Mm-hmm. bu fekkee ne sonno yi moo wàññeeku soo ñëwee Kër Docteur dañuy tegal benn appareil boo xam ne. Mm-hmm. mooy dugal ngelaw bi sa biir yaram ngelaw bu baax bi ñu koy oxygène ngelaw boobu lu muy gën a bëri sa biir yaram sa yaram di gën a am doole di gën a xeex doomu jàngoro bi mm-hmm. bu fekkee ne. feebar bi daf lay dafa yaram bu tàng bu am solo boo xam ne mën na dem ba ngay lox wala ba ngay miir wala sax ba nga ba nga xëm boo ñëwee ko docteur am na ñu garab yoo xam ne ñooy wàcce tàngaw yaram boobu ba mu dellu température normale ak yeneen ak yeneen maanaam xeetu yàqu-yàqu yi nga xam ne moom la doomu jàngoro bi di def si biir yaramu nit kër docteur mën na defar yàqu-yàqu yooyu ba yaramu nit ki dellu dellusiwaat am doole Euh, bénéfice la wër ci feebar bi. Mhm. moo tax ñu ngi ñaan ñëpp ñi nga xam ne coronavirus jot na leen fii jamono ji wax ni ci biir Sénégal yal na ñoom ñëpp ñu wër ak jàmm. mën a dellu seen askan. Mhm. may ma rek mooy yokk ci ne loolu itam moo tax euh, ministre de la santé et sociale ne du ñu yóbbu ñëpp ñi feebar ci benn hôpital dañuy tas euh, bërëbu fajukaay ci biir Sénégal bépp ñu bëri nag rawat nañu def Dakar dañoo yaakaar ne benn mu hôpital Fann. moo moom moom fa la yóbbu ñi feebar déedéet xam ngeen léegi ne am na ñoo xam ne ñu ngi leen di faj Touba mhm. dégg ngeen ne am na yeneen euh, fajukaay yoo xam ne ñu ngi leen di samp ci biir euh, région 14 régions Sénégal mën na sax wax ne ci biir département yu bëri biir Sénégal mhm. comme ça fu feebar bi fekk nit rek ñu mën la ñu mën la faj ndax waroo dem lu sori euh, sinon day indi yeneen Euh, yeneen jafe-jafe. yàlla sax feebar bi yem fii. yem fii incha allah euh, docteur beneen question boo xam ne mënuma euh, jeexal émission bi te duma la ko posé parce que spécialiste nga ci wàllum frontière rek yooyu gis nañ ne lépp loo xamante ne liaison aérienne la avion dem ak dikk daal nañ koo wàññi mais gis nañu itam ni fii ñi jël avion boo koy xool ci population bi xaw na bëri na bëriwul mais tey ñu bëri dañuy jaar yoonu suuf ak yu demee noonu. te ci sous région yi am na feebar bi réew yu bëri yoo na ne ma nga fa gàmbi gii rek bu yàggul am na cas bu fa feeñ te moo ñu gën a jege est-ce que gestion frontière terrestre yi tamit waruñu koo gën a maanaam euh, xool daal. jërëjëf ci laaj bu am solo boobu ndax euh, lii yëpp euh, yéete ak yégle la. Mm-hmm. ngir askanu Sénégal xam itam politique de santé nationale. naka la ko ministère de la santé et de sociale di ko di ko doxalee. xam nga nee naa la man euh, euh, nekkoon naa médecin euh, contrôle sanitaire aux frontières aériennes. am naa ay naataango yoo xam ne ñu ngi liggéey contrôle sanitaire aux frontières am na itam ay naataango yoo xam ne ñu ngi liggéey contrôle sanitaire aux frontières terrestres. ñoo bokk liggéey dañoo wuute rek liggéeyukaay. ni ñuy samee aéroport frontière aérienne. noonu la euh, ministère de la santé et sociale di sàmmee frontière maritime noonu lay sàmmee itam frontière terrestre di ci nag lëkkaloo ak réew yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal frontière maritime di ci lëkkaloo itam ak réew yi nga xam ne ñoom la ñu bokkee bokkal euh, frontière euh, terrestre ba ci ni ko defee nii frontière aérienne maanaam bu ñuy tëj dañoo xool dëkk yi nga xam ne ñoom ñu am coronavirus ñu ne avion yi jóge foofu buñ ñëw fii waaye ñii ne itam avion dootul jóge Sénégal dem ci dëkk yooyu. Mm-hmm. noonu la def nag frontière maritime ñi ñu ko seqal ñu ne leen léegi nii la doxalee ngeen aar seen réew ñu aar suñu réew. Mm-hmm. terewul nag ñu xaritoo ba léegi. Mm-hmm. ñi nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy seqal euh, frontière terrestre ñu ne leen nag léegi comme feebar yi toll na fii aar leen seen biir dëkk ñun Sénégal ñu aar. suñu biir dëkk te terewul euh, ñu des ay mbokk euh, des euh, nekk ay ay ay xarit. kon kon xel mën na dal foofu. xel mën na dal ndaxte xëy na da ngeen a jàkkaarloo ak koo xam ne moo ngi frontière mm. aérienne. waaye am na ay naataango yu bëri yu bëri yoo xam ne ñu ngi liggéey. parce que des fois da ngay dégg docteur ci ci information rumeur yeeg yu demee noonu ak tamit euh, peut-être parfois ñu naan ay dafa am ñuy jógee ci frontières yi di ñëw yu demee noonu ñuy jaaree frontière di jóge ci Italie yeneen yu xaw a doy waar daal. Mm. xaw na doy waar waaye tey bu ñu xoolee ne benn sénégalais moo ñëw Sénégal dem fa mu dëkk am feebar bi bañ Euh, xëy na bàyyi xel ci liñ ko digaloon ñu méngale ko ak yeneen nit yi xam ne dañoo am feebar bi fii biir Sénégal waaye jël ay matuwaay ba ñu kenn bu ñu méngalee ñaar yooyu bàyyil ma wax ci ki nga xam ne dafa am doomu jàngoro bi xëy na matu jëlul matuwaay wala wala matuwaay yi mu jël doyuñu mu wàll daanaka ñaar fukki nit maanaam benn nit jox feebar bi ñaar fukki nit tey ñu ngi ñaan waa Sénégal képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bu am coronavirus déglul li njiitu réew mi wax li mu waxal boppam ak li nga xam ne def koo jaarale eh, ci baatu eh, ministre de la santé et de l'action sociale mm-hmm. maanaam toog leen tey leen nañ leen taxaw te ngeen xam ne loolu du Sénégalais kese. boo demee Chine dañoo ne waa Chine toog leen. nga dem Italie bu ñu nee toog leen du ñu wax ne ñi dëkk Italie donc dañ dañ toog dañoo ne ñi nekk ci dëkk bi waxtu bi toog leen fi ngeen nekk. kon ñu tam waa Sénégal nañ toog ngir yàlla ndax xam ne feebar bi bàyyiwul kenn képp ku ko jege mu song la kon nañ fexe bañ koo laal bañ koo jege. ñaareel bi ñi nga xam ne dugg nañu Sénégal boobu fekk tëjuguñu frontières yi ngir yàlla. fukki fan ak ñeent yu topp ci seen ñëw fii Sénégal nañu sam di seetlu seen yaram bu ñu jaxasoo ak nit ñi nañ toog seen kër moytu xew yi yàlla def na sax xew yi léegi euh, président de la République euh, joxe si diggal mhm. pour ñu ñu moytu ko ñu ñu moytu leen organiser ci jamono bii nañ toog seen kër di seetlu seen yaram te teel a woote bu fekkee ne dañoo gis mandarga ci seen yaram mandarga maanaam feebar bi. Mhm. ngir yàlla ko mun ñaan nañ ko nit ñi. ku nekk yaa mën a sàmm sa bopp. sàmm ñeneen yeeg say. te boo samee sa bopp misaal bi ci gën a neex a jàpp moo di man ñëw naa Sénégal bi ma ñëw Sénégal wóoruma ndax doomu jàngoro bi mu ngi sama biir yaram ndax wax naa ko sànq doomu jàngoro bi mën na nelaw fukki fan ak ñeent ci biir yaram bi ma ne ah man de su ma moytuwul su ma deful ndànk benn dinaa am feebar bi ñaar. su nekkee góor laa dinaa ko wàll suma jabar ak sumay doom su nekkee jigéen laa dinaa ko wàll suma jëkkër ak sumay doom ku nekk bu ko xoolee ci boppam rek ku nekk bu xoolee ne bu yàccaanee feebar bi mën na jóge ci moom dugg biir këram dugg si biir njabootam kon yaakaar ne ku nekk mun a taxaw ne man soldaar laa buy xeex coronavirus fii ci biir Sénégal ci kàddu yi am solo yooyu la ñuy jeexalee émission bi docteur Barnabé nga ñu may la rek nga tàggatu ak auditeurs yi. Euh, delloo di leen sant ndaxte yéen ñi taxawal waxtaay bi yéen ñi taxawal jotaay bi jàpp ngeen ci li euh, monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale euh, monsieur Abdoulaye Diouf saar santaane maanaam yaatal waxtaan bi ndax askan bi mën cee jot yaatal waxtaan yi nga xam ne ñooy yeete waxtaan yi nga xam ne ñoom ñooy yëgle di wax di dellu di wax mbokk auditeurs yi ak waa Sénégal yépp ne fi ñu toll nii ku nekk ci ñun na jàpp ne soldaar la buy xeex coronavirus ndax comme ci nit lay dugg kon nit na taxaw ne man de doomu jàngoro bi du jaar ci man te du jaar fi ma nekk itam na bépp sénégalais boo xam ne gis na nit koo xam ne wala koo xam ne euh, ñaaw na njort ne dafa am doomu jàngoro bi na ko wàllu na ko dimbale waa kër docteur teel koo jël si yóbbu ko hôpital euh, mën ko faj et itam digle yi nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale wax na ko ci mbirum set say loxo yu set euh, booy tisooli booy tufli ak itam boo nekkee ci yenn bérébu liggéeyukaay yi euh, na nga jël matuwaay bii ak bële lépp lu jëm ci xeex feebar bi yal na ko Sénégal bu nekk ak gan yi nga xam ne sax ñu ngi fii biir Sénégal ci jamono jii yàlla na kon ñëpp ñi nga xam ne tey ñu ngi Sénégal ku nekk wuut lan la ci mën a def ndax feebar bi bañ a romb fi mu toll nii. ndax feebar bi ñi mu dugg jot a dugg wër ak jàmm mën a dellu seen askan. ndax feebar bi génn Sénégal euh, génn Afrique génn àdduna si sëpp ñu delluwaat ci jàmm te lu yëpp ñu koy ñaan yàlla bi nga xam ne moo ñuy sàkk. te moo ñuy sàmm. jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, docteur Barnabé Gningue ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne may nga ñu ko tey may fàttali rek euh, yow yaay euh, cordonateur Euh, bu programme bi xeex wàllu tuberculose di euh, sëqët su tar si fii ci Sénégal di payante nekk yi tamit koo xam ne sa xam-xam dafa màtt ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu toppatoo ay wàllu crise ci frontières yi donc euh, nga nekkoon itamit médecin chef fële nga mooy sa aéroport international Blaise Diagne donc ñett casquette yooyu yëpp tey doon ay mbir yoo xam ne dafa am solo ci li nga xam ne moom mooy wàllu feebar bi ñuy jaajëfal bu baax ci xam-xam bu set bi nga xam ne Euh, joxe nga ko fii euh, di jaajëfal itam auditeurs yi nga xam ne ñu ngi doon déglu di leen dig daje 18h 19h àjjuma incha allah beneen thème beneen invité ci Rewmi FM 97.5 di ñaan nag balaa boobu ñu daal di kon euh, tàggatoo ak feebar bi nga xam ne moom mooy kon coronavirus jërë ngeen jëf.